lépp lu ñuy rey nit Ablaye mu leer ngóor jigéen dañ ci rey nit ah bés buñ la jàppee wala nga taxaw ne man góor guy séyee góor laa yaa ko wala nga taxaw ne man góor gu ñuy séyee laa bu boobaa yaa nekk sa seede bopp te yokk ci ñu dem droit yokkasu mukallafu bi iqraarihi droit loolu la bi may jàng droit xale laa su ma Macky tegoon ci tribunal yi ma àtte ñëpp maa la ko wax bi may jàng droit gone la maa ngi wóllëri bu ñuy wax saw mu nga Casamance daf may wax ni sama gars yi dañ may wax ni waaw moom kii la di la sama gars dañ may wax ni est-ce que Iran jàngul droit bañ a jàng deewul mu ngi may dégg bu ngeen ko tegee mu déglu ko nit bu ne maa def mooy seede boppam doy na moo tax léeg-léeg gars yi di coow ci wàllu fase naan wuy amul seede maa ko fase nag waaye amul seede ma ne ko mooy yow yaay sa seede bopp nangu nga kay lu ñuy doyee seede ku nangu amatul seede ku lànk mooy waral seede moo tax yuqasu mukallafu ci sa laaj waaye bii xaraar yi ki ñëw ne man demay sëyee góor parce que léeg nga dagg laaj am ko naan xooxoo waaw lu ci topp ëpp naa def moo wocc mu yeggule yam man léeg-léeg moo waxtaan dem naa benn clinique benn jigéen ne ma papa Iran yi nag loo waxati nay yegg yow da ngay commencé dara ñu concentré du nga wax leneen ma ne ko bari wax rek bëri wax rek <laughs> mais yuqasu mu kallafu bi iqraar yi Iran mi ne may sëy sëy damay sëyee góor yoon jàpp na ko luy sama àtte danañ ma teg di ma jam duñ ma rey directement de di ma jamat di ma jamat di ma jamat di ma jamat ba ma dee su ma paree ñu sang ma sang ma seet ku ñàkk fayda mu jullee ma ñu yóbbu ma ci armée li suul may suul rek malaaka yi sulli ma yóbbu sa doom fa la armée li waali ci boppam bu mu bañ ko ko woo non li mag ñi amoon bu jëkk moo amatul léegi mooy koy defere fi ne ñuy xottee fi ne mais ñuy defar amu xam nga bu njëkk am na machine yoo xam ne pas yee fa ne gaar yére rek leen fa tax gaar rek gaar yére bu xottee ko ñu gaaral la ko ñoom du ñëw lu normal déedéet comme congaan li mu déedéet ira sagar yu bon yii mu sol xottee ko ni mu dem ñu gaaral ma ko dafa war a am ci dëkk bi ñuy gaar sëñ Maxtaar Sarr waruñu ko tëj kenn ñemoo parce que sunu élément la xëy na dafa njort xëy na xaw ma lu ne ci xelam waaye ki mu ko wax sénégalais la man man bi nga ma ne waali def naa ñaari affaire ci wàllam jabaram bi mu ko bëggee yóbbu màkk saaga nañ ma ci dem leen seet ko ci internet bi génne leen ko saaga wuñ ma ci maa nga jógee Linguère sonn lool jabaram oo ma ne ma dama bëgg yóbbu waali màkk papa ma bëggoon nga joxal ma ko billet bi lii lu ci ne dama lay laaj rek ci nit ku xolam rafet lu ci ne dara newu ci ma jógeeg sama coonook woo ci bopp bi dem leen ci net bi mu ngeen fi jógee ngeen gësu ko xanaa bu ma doxee lii ñaan ko lii war na maa may lii te man bu ma xamoon fu mu dëkk danaa dem ba ca moom yóbbu ko ci Maxtaar Sarr ñu bokk waxtaan juboo yoon bañ cee am wàll loolu bëgg naa ko suñ ma ko mayul ma dem ci sunu borom waxtaan ak moom te li ma bëgg yàlla dina ko def ñaar yi moo fi ne mu nangul ma ko baa ma ba ko fi dem ci yàlla mu nangul ma ko mais maxtaar saa duma ko seetaan kii di ko fitnaal duma ko nangu mukk ñuy fitnaal maxtaar saa duma ko nangu mukk seytaan mukk yàlla rek la fi nekkal diine rek lay waxtaane waxtaanee guddeem ak bëccëg yi diine la du ma seetaan mukk ñu toroxal ko waaw lu ma ci am nag dinaa ko jël waaw kay. allah oustaz mu doon